sayyidil bariya sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ànd ak ñun ci fu nekk ci waxtaan wi la di ëttu nabi sallallahu alayhi wa ñu ngi wéy ak yéen ba tey ci seen waxtaan ëttu nabi sallallahu alayhi wa bi leen jàmm ji info jagleel ci koor gi ba tey ñu ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi la doon wax ci waxtaan wi ñu génn ne am na beneen mag bu ñetteel mag ñi ma la tuddoon léegi ca gannaaw mu di Cheikh Ibrahima Niass mu di Seydi El Hadji Malick am na keneen koo xam ni dafa jékki-jékki rek daal di ne li ngeen wax yëpp dëgg la dinaa leen ci tegal ne daal mbir mi lenn rekk la gaañi lam yabdu lam yabdu mithlal Moustapha Muhammad sirran wa jahran fil baraaya sarmat lam yabdu musuta feeñ ci àdduna musta ku feeñ mitlal Moustapha ku mel ne Moustapha mii musta kenn ku feeñ ku mel ne mustafa musta am fil baraaya ci àdduna ji ñu ne ci univers bi lam yabdu mitlal Moustapha Muhammad maa ngi jublu ci ki wax Muhammad sirran wa jahran ci lu nëbbu nag ak ci lu feeñ musuñ gis ku mel ne Mouhamad Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sarmadan ba faw ba faw nee na dootuñ ko gisati nag waaw sirran wa jahran fil baraya sarmad dootuñ gisati ku mel ne yonent bi gis nañ ko benn yoon la benn numéro la du deux ba ila yawmi kan moo wax loolu mooy ka waxaatoon ne itam huwa alladi wax ji wax ji daal nañ ko gàttal rek ah loo bëgg a wax mu ne huwa alladi faaqa siwaahu huwa alladi faaqa siwaahu Cheikh Ahmad Bamba mu ne kii daal ñuy waxtaanee wax ji wax ji daal mooy mooy ki nga xamante ne sut na ku duwut moom jeex na ku duwut moom daal sut na la mooy asamaan si asamaan féetewu ko kaw jeex na loolu la Mouhamadul Bousayri kon ki ma la doon wax kan la mooy Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul damay wax ni suñu mag ñii ci senegal wallahi biñ leen di ooxee ay kilifa diini suñ ko matee wutoon kon tey Sénégal am gàcce biñ leen di woowee ñoom kilifa diine ci seen jamono buñ matee wutoon kilifa diine gañ doon kon tey jii Sénégal am gàcce waaye dëgg dëgg gàcce ngaalaama yéen suñu mag ñu baax ñi gàcce ngaalaama yéen jaadu woon na Sénégal tànnal leen bu munta nekk bés bu nekk sax tànnal leen benn bés buñ tuddee journée culturel njukkal mag ñi nga xam ne mag ñëpp lañuy njukkal ci bés boobu kii li kër kër diine yëpp dajaloo ci benn bërëb ndeysaan mu rafet yelloo nañ ko de journée mondiale de la femme journée nangam journée nangam waaye waaye journée mag ñi nag yelloo nañ ko ci Sénégal fii ndax xam nga lu taxam ñoom ñooy les ambassadeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñoo représenté la prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf rawatina ci Sénégal doo dem ci benn réew ci réewi arab mbaa réew yi diine l'islam présenté fa mbind mag ñi ba am kersa déedéet arab yu xóot lañuy ñuy làkk te génnuñu réew mi kaddu yu leer nañu lañuy wax ci lugal arabiya muy làlla nga arab te doo ci gis damm-damm dëgg-dëgg nag yéen la yonent bi nàkkal nag naalal na leen de kenn du yéen gàcce ngaalaama yéen suñu mag ñu baax ñi yal nañu leen yàlla fayal yal na yàlla rus leen ba dàqal ñu tawat gu metti gile ci senegal ak ci àdduna wërngel képp ci barke saxaaba yu baax yi te yéen saxaaba yi rek ngeen fi nekkal saxaaba yi rek ngeen fi niru niruwu leen lu mooy saxaaba yi Seyd Muhammad xanaa xamoo ne bu mag ñi ñëwoon ci seen jamono lekk-lekk gu neex gi naan-naan gu neex gi tëdd ci kër yu rafet yi féetewoo alal ji kon tey senegal nekk ci guute gu métti de waaye ñoom dañ ñoo bàyyil neex-neex gi jël métit géeg naqar gi yóbbu ndeysaan seetlu nga li ma ñoom loolu la ñu defal jël nañ la gën a di ci lekk féetewoo ko des ak yàlla ndax bëgg nañ seen njaboot gi ñëw gannaaw si gi kattan nga ñu am ñoom ak doole yi dëgër gi ñu am ñii di ñëw mën nañ ko bañ a am pour mën a gañeel seen bopp ñoom ñu jël ko ñoom féete woo ko pour gañeel ñu ñun dund gu neex mooy la saxaaba ya defoon yal nañ leen yàlla fayal muhammadul busayri yu moom itam daal di ne li mag ñi wax ñëpp dëgg la moom it daal di ne kayfa tarqa ruqiyaka al anbiyaau ya sama amma tawalatha samaau yow yonentu yàlla muhammad sama soppe boobu seen soppe fa tarqa wax leen ma rek bu sëri mu ne wax leen ma rek naka la yonent yi ak li ñuy màgg-màgg ak li ñuy tedd-tedd ak li ñuy kawe kawe nan lañ mën a def rek ñoom itam ba fexe rek nag ba yéeg yéeg bu kawe bi yonentu yàlla muhammad yéeg ca boroomam nañ nan lañ mën a fexe ñoom ba yéegee foofu kawe nañ de waaye wax leen ma fan lañ mën a jaar rek ñoom ba mën a yéeg comme yéeg gi yonent bi yéeg sallallahu alayhi wa xam nga lu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam mus nay waxtaan ak jibril alayhi salaam jibril ne ko man daal fekk naa fi biddéew boo xam ne juróom-ñaar fukki junne at day fenk di réer ak a feeñ yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko biddéew boobu ngay wax mu ne ko ah mu ko man miila la woon <laughs> ndax dégg nga wax ji Mouhamed suñu suñu turandoo boobu yéeme na waaw Jibril mooy wax pour moom moo fi jiitu yonent bi de di wax moom juróom-ña soixante dix soixante dix mille yoo xamante ni mu ngi fekkee biddiw buy fenk ak sow di réer ak a feeñ biddiw bu ko yéem mu koy nettali ne ko fekkee naa ko yonent bi ne ko biddiw boobu man mii la woon allahu akbar sallallahu alayhi kon kan moo mën a yéeg ba toll noonu ku toll noonu moom la Busayri yi di wax nag mu ne ko yaa samaan yow asamaan si xam nga li gën a fort ci ñun ñi ni féetee suuf li gën a kawe mooy asamaan avion kawe na lool mais da nga koy xepp boo bëggee tudd li nga xam ne moo nekk au top wala au fond mooy da ngay wax asamaan rek mu jeex asamaan si nag moo ëmb suuf si yëpp moo tax yonent bi ëmb mboolem yonent yi moo tax yonentu benn munta ñëw ba tiim yonentu bi yonentu bee tiim ñëpp sallallahu alayhi wa sallam moo tax mooy xaatibul anbiyaai wa rusuli kaay ma waxal la ko foo koy fekk gis nga yonentu bi dafa raw ba ci même chiffres yi boo ko déchiffré yonentu bi moo raw sallallahu alayhi wa toujours mooy jël pee rendez boobu maa ngi koy jox suñu mbokk yi incha allah ci waxtaan wii di ñëw bu soobee yàlla naka la yonentu bi rawee ba ci chiffres yi sax incha allah ba tax li bu sëri wax ne yonent bi kenn munta tiim sak màggaay ak sa kawe rawatina yonent yi incha allah taala ci waxtaan wii di ñëw lay doon di leen gërëm beneen yoon ci seen rafet teewlu bi ngeen rafet a teewlu ak ñun di baalu xaq boroom xam-xam yi ci njuumte gi lu ci rafet sante nañ ko yàlla di leen baalu xaq yéen ñëpp di leen wax ne wa axiru daawaana an alhamdulillahi wa alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu